bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ayuha almushahiduna alkiram wa ayatuha almushahidat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi tedd yi ñuy seetaan dañuy seetaani fii ci TFM religion ñu ngi leen di nuyu fu ñu leen baaxoo nuyoo di leen ndokkeel di leen dalal ci seen émission seen jataay bi ñu tuddee minbaru saxaaba mbokk yi xam ngeen minbaru saxaaba jataay la boo xam ni dañ ciy faral di waxtaane di ci nafar dunduk saxaaba yi yonente bi alayhi seen liggéey ci lislaam seen liggéey ci maandute seen liggéey ci jikko seen liggéey ci économie muy wàll koom-koom seen liggéey ci wàllu social muy dimbalante mbokk yi xam ngeen ni ñi ngi nekkoon nag mbokk yi xam ngeen ni Ousmane moo nekk ñetteelu xalifa yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam xam ngeen bi fi yonent bi jógee ci dogalu borom bi subhaanahu wa taala ki njëkk a wuutu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ ko waxe woon mooy Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu ginnaaw Abu Bakrin Siddiq mbokk yi xam ngeen nii ki nekkaat xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci doxal mbiri jullit yi mooy Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu ginnaaw nag Omar ibnul Xataab ci la Usmaan ibn Affaan daal di ñëw nag doon xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci doxal mbiru mbiru jullit yi mbokki na tey tom bi nga xamante ne bii moom lañ fa yéenee waxtaanee ci dunduk Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu moo di la ñuy tuddee tazmiyatuhu bi di nuurayni wa mawqifuhu alqaalit fi tajhizi jayshi l usra radiallahu anhu mbokk yi ñaari tomb yooyu lañ fas yéene waxtaane tey ci dundug Ousmane bin Affan radiallahu anhu yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi ko daan dàkkantel di ko tuddee Zunnurayni boroom ñaaru leer yi lan moo tax ñu ko daan tuddee boroom ñaaru leer yi moo di nii dafa yoroon ñaari doomu yonent bi alayhi salaam ñuy waa këram di ay soxnaam kam njëkkoon yor xam ngeen ni mooy yotu bintu Muhammadin alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi Raqaya génnee àddina nag ci la ko yonent yàlla muhammad joxaat doomam bi di ummu kalsuum radiyallahu anha kon kooku mooy lenn ci euh, jaar-jaari Ousmane bin Affan radiyallahu mbooleem xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi teewe yépp Ousmane ànd na ca ak moom di yëkkati baatu yàlla di taxawal lislaam di xeex pour aar yàlla ji ba mu des benn xëswa benn bataay bu ñuy tuddee xaswatu badrin xaswatu badrin moom bokk na ci xare yi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko xare te Ousmane bin Affan nekkul ci wetam benn xare boobu kese la muy xaswatu badrin te it li taxoon Ousmane fekkewul badr moo di nii soxnaam bi mu yoroon muy suñu yaay di doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di Roqayatu bintu Muhammadin xam nga moom la osmaan njëkkoon yor mu nekk aawoom ginnaaw nag bi yàlla dogalee mu tawat tawat ju metti moom xat moom Roqaya amul kenn ku ko yor ca Madina ci la ko yonent bi jox ndigal ne ko yow osmaan man nga bañ fekke si gaswatu badrin bañ a fekk ci xare badr waaye man nga des ci Madina nag taxawul ma yoral ma sama doom ji de di sa soxna muy Roqayatu loolu moo tax bi ñuy xare ji Badr Usmaan bin Affaan moom fekkiwu ko ndax ma nga desoon ca Madina di toppatoo soxnaam di taxaw soxnaam te mooy doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy Roqaya bi yàlla dogalee ñu dem ca xare ba xaswatu badrin ba dellusi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dellusee ca Madina jóge ca xaswatu badrin muy xare Badr ci la fekk nag Roqaya daal di wujj borom daal di faatu génn àddina yonent bi alayhi salaam daa di woo Xusmaan daal di koy defal xamal ko ne que àddina moog loolu moo ànd dund dafay faral di ànd ak dee am dafay faral di ànd ak ñàkk wér dafay faral di ànd ak feebar kon yàlla dogal na moom Ruqayya wuy jëna boromam faatu na na sa xel dal ni ko nag dinaa la jox sama doom ji ñu tuddee Ummu Kalthum kon ginnaaw xaswatu badrin ginnaaw faatu faatuk ya ci la yonente bi alayhi salaam jël nag doom ji ñu tuddee umu kalsuum daal di koy jox Usmaan ibn Affaan mu nekk nag ñaareelu soxnaam waaye nag doon ñaareelu doomu yonente bi alayhi salaatu salaam bu Usmaan yor loolu moo tax ñu koy tuddee dunnuurin boroom ñaari leer yi ndax dafa yoroon ñaari doomu yonente bi alayhi salaam mu njëkkoon yor yor ya ba roq yi génn àddina mu yoraat ummu kalsum moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax nii mësuñoo xam ci taarix benn jullit boo xam ni yorandoo yor na ñaari doomu yonente bi alayhi salaam ci dundam kudul Ousmane bin Affan kon menn mu Ousmane ci saxaaba yi ci jullit ñi mu mos a denc ñaari doomu yonente bi alayhi salaam te dafa njëkk a denc Roqaya ba mu génn àddina mu jël Umu Kalsum kon kooku mooy Othman ibn Affan radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam wasalaam Othman ni ko law kaana andi taalisatun la zawwajtuha Othmana man de su ma amoon ñetteelu doom bu jigéen Umu Kalsum génn àddina dinaa jël sama doom bu jigéen boobe mayaat ko Othman mbokk yi lan lay tekki kon mooy jikko ju rafet ju nekkoon ci Othman ibn Affan radiyallahu anhu bokk na jikkoom yi gën a kawe moom Ousmane mooy am kersa mbokk jullit yi ñuy seetaan kersa lu am solo la ci jullit bokk na ci qualité jullit mu am kersa te mooy di jomba wax yenn kàddu yu ñaaw di jomba jëf yenn jëf yu ñaaw am kersa digganteem ak boroomam waaye am kersa digganteem nag ak ay mbokki doomu aadamaam loolu qualité la ci jikkoy jullit moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon ni ala astaxyi min rajulin tastaxyi minhu almalaika sallallahu alayhi wa sallam mu ni ndax duma rus nit koo xam ni même malaaka yàlla yi dañ ko rus mooy Usmaan ma tax yonent bi alayhi salaam ku joxoon cër Usmaan ku ko rusoon la ndax nee na malaaka yi sax dañoo rus Usmaan ngir ngëm yàllaam ngir jikkoom yu rafet ngir kersaam kooku mooy Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu mbokk yi nag Ousmane ibn Affan xare bi ñuy tuddee xaswatu tabukin mu nekkoon nag xare bu metti ci lislaam ndax xare la boo xam ni période bi xare bi amee dafa nekk période tàngaay mu tàng lool euh, tàng lool waaye nag crise am ci wàllu économie maanaam jafe-jafe daal am ci wàllu koom-koom nga am dajanaa dëkk bu metti lool alal yombul daje na itam ak tàngoor bu métti lool génn ci bitti yombul mu li ñu tuddee jayshul usrati mooy armée bi nga xam dafa talloog jamonoy jafe ci génn ci bitti jamonoy jafe ci am alal jamonoy jafe ci tàngaayu jant yonente bi alayhi salaatu salaam daa di soññ nag jullit ñi saxaaba yi daa ni man yunfiqu nafaqatan mutaqabbala kan mooy dépenser depanse boo xam ni yàlla daf koy nangu bu ëllëgee mu fay ko ci lu kawe njortam mu ne kan mooy jël ci alalam financé armée julli ñi war a xeex ak waa Rome ak jaysu Rome kan moo koy def bu ëllëgee jëfam jooju yàlla fay ko ca lu kawe njortam waaye waxaat ni man yu jahizu haulaai yaxfirullaahu la kan mooy waajal armée bi xare bi kan moo koy waajal ci ngànnaay kan moo koy waajal ci ay warukaay ay daaba kan moo koy waajal ci ay jumtukaay yu mën a xeexee bu ëllëgee yàlla jéggal ko mboolem ay bakkaaram muy digge yoo xam ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko diggee di ko saxaaba yi ñëpp daa ci tax taxawaay bu am solo waaye ka ca gën a ràññeeku nag mooy ki ñuy tuddee Othman ibn Affan radiyallahu anhu ki njëkk jël alalam def ko ca jayshul usra mooy ki ñuy tudde abu bakrin siddiq abubakrin daal dem këram jël lépp lu mu am ci alal ñëw jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko ma tàmbalee ko ci waajal xare bii di jayshul usrati kan moo ci topp mooy Umar ibnul Xattaab daadi dem këram daadi xaaj alalam jël benn xaaj ba bàyyee njabootam jël beneen xaaj ba jox ko yonent bi alayhi salaam ngir man cee waajal xare bi kañuy tuddee abbas ibnu abdul muttalib dem këram jël alal ju baree bëri ñëw jox yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ma duggee ko ci ma waajale ko xare bi kañuy tuddee talxatu bnu ubaydullah radiallahu anhu dem këram moom itam jël alal ju bari ñëw jox yonente bi alayhi salaatu salaam ni ko ma waajale ko xare bi kañuy tuddee abdurahmaan ibnu awf dem këram moom itam andi li toll ci ñaat téeméeri ogiya ci wurus jox ko yonente bi alayhi salaatu salaam muy wurus bu baree bare bari mu jox ko yonente bi alayhi salaatu salaam ni ko ñu waajale ko xare bi kañu tuddee euh, Abdullah Maslamata dem këram moom itam jël al ju baree bari jox yonent bi alayhi salaatu salaam ni nañ ko waajale nañ ko waajale xare bi ndeysaan ku daw yaram na ku ñu tuddee euh, abu aqilin daa di fanaanee wëggal ay nit di jukki ay baag fanaane ko ba bët set jot ñu fay ko ñaari ñaari kilo tàndarma ak tuuti lañ ko fay mu xaaj ko ndeysaan ñëw nag jox benn xaaj bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal am kersa lool ni ko lii day moom rek laa am ndax biig damaa fanaanee root fanaanee jukki ay baag ba bët set bi ma xëyee ñu fay ma lii ma xaaj leen li pàyyee ko ak sama njaboot mooy seen dund benn xaaj bi laa jël ni jox la ko ngir ñu waajale ko xare bi kon gis nga ne saxaaba yi seen cofeel ci borom bi subhaanahu wa taala ak seen gëm waxi yonente bi alayhi salaatu salaam mbokk yi kenn fekku leen ci saxaaba yi jar nañoo roy ci ñaar mooy bëgg yàlla ba jeex takk ak fonk yonente bi ak gëm ay waxam ba jeex takk ñaar moom képp ku jullit war na koo jéem a roye ci saxaaba yi yonente bi alayhi salaatu salaam ngir seen taxawaay waaye nag jàmbaar ji daal di ñëw mooy ka tuddee Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu daa jël junni diinaar nga xam ne ji xaalis bu bare bare baree bare la mu jël ko daal koy def ci am mbuus ci ab saaku ñëw ba ci wetu yonent bi alayhi salaam mu daal ko fiy teg yonent bi daal daal jël loxoom dugal ci alal ji di jàqi ah di wëlbati di wëlbati daane nag maa darra Ousmane ma amila baada al yawm maa darra xusmaan maa amila baada al yawm yonent bi daal di wax ne day lu weesu tey osmaan mii day mënta def ci kaw suuf lu ko wàññi dara mu ne lu weesu tey jii may waxee Ousmane mënta jëf ci kaw suuf jëf ci ko wàññi dara ci kanam borom subhaanahu wa taala bu ëllëgee ngir lan ngir taxawaayu osmaan nga xam ni alal ju baree bari la jël muy wurus jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël ay giléem lu jige junniy giléem mu jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam jël lu tollook ñeent fukki fas jox ko yonent bi alayhi salaatu salaam jël même buum yi ñuy laabe yi ñuy takkee ci fas yi daf ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buum yi ñuy takkee ci eh, giléem yi mu jox ko yonent bi nga xam ne bàyyiwul dara dafa waajal xare bi lépp la joxe la ca manqué woon lépp moom moo ko complet moom Ousmane joxe wurus wu baree baree bari ay diinaar joxe ay giléem yu bari yu ñu mën a war joxe ay fas yu bari yu ñu mën a war joxe tam ay buum ñuy soxla ngir mën koo def nosu fas wala nosu giléem nga xam daal dara lu ñuy soxla ci xare bi moom Ousmane bàyyiwu ko keroog ci la nag yonent bi bëgg ci Ousmane daal di wax ni day ma darra Ousmane baadal yowm mu ne daal lu weesu tey jii ñuy waxee nii Ousmane mënta jëf ci kaw suuf jëf ju ko wàññi dara ëllëg ca kanam boromam subhanahu wa taala mbokk yi lii lenn la ci taxawaayu Ousmane ibn ci wetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye ci biir jullit ñi moom Ousmane ibn Affan Ousmane bokk na ci fukki saxaaba yi nga xam ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo leen moo leen garantil aljanna moo wax ne ëllëg yawmal qiyaam moom am nañ kër ci aljanna bokk na ci fukki yooyu nag osmaan mi ci la bokkoon kon osmaan kenn la ci fukki saxaaba yi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen warlul moo leen garantil aljanna bu ëllëgee waaye tam Ousmane bokk na ci saxaaba yi nga xamante ni bii ñoom ñoo dajale alquranu karim ba tey jii képp kuy julli rek man cee jariñu nam ko neexi ci di ko ci jàng lam ci bëgg a jàng di ko jaamoo borom bi subhanahu wa taala di ca jàng lam cey bëgg a jàng ngir di ko mokkal di ca jàng lam cey bëgg a jàng ngir di ko jaamoo yàlla di ko jullee kon bokk na ci taxawaay Ousmane mooy dajale alquran ba jullit ñi tey ci àddina bi mën a jëriñu ci alquran kon ginnaaw yàlla nañ ko sante Ousmane ibn Affan bokk nañ ci saxaaba yi taxaw taxawaay bu am solo boobu waaye tam Ousmane eh, jayshul usra doon xare bu metti boo xam ni daje naa tàngaay daje naag xaalis yombul osmaan moom moo volontaire daa di jël lépp lu ñu soxla ci alal mu jox ko yonent bi alayhi salaam ci wurus ci ay gileem ci ay fas ci lépp lu ñuy soxla baqare bi daa amatuñ lenn lu leen manqué ci li yonent bi daal di wax ne nag lu wees tëj yi day Ousmane moom ci kaw suuf mënta defati lenn lu ko wàññi dara fakkanam borom bi subhaanahu wa taala kon lii lenn la ci taxawaayu Ousmane ibn Affan ci biir jullit ñi moo tax ndeysaan keroog bi nga xamante ni bi nag osmaan dem na ba ci nag mujj xilaafaam te tollook ato fanweer ak juróom ci gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne ci lañ daa di nag euh, ndarkeb daa di wër ndoom ma nag kër Ousmane ibn Affan ngir nag war a jëflante ak moom mooy lañuy ñu tuddee al fitnatu al kubra fitna ju rëy joo xam amoon na ci lislaam ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu ci ginnaaw abu bakrin siddiq ci ginnaaw amar ibn xataab radiallahu anhum mooy li ñu tudde al fitnatu al muy fitna ju màgg joo xam ne daal jafe-jafe bii am sax ci biir jullit ñi ba léegi nii maa ñu toppee ca fitna joojee mooy wuute yi bari ya ngay gis ci biir jullit ñi yooyu maa ñu toppee ca lañuy ñuy tuddee al fitnatu al kubra nga xam ni fitna ji ci lañ jaaree ba daal di rey nag Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu bi nga xamante ni bii gaa yi ko bëgg a ray si ñëw nañ ba wër ndoom ba këram daal koy gaw encercle kër gi luy tollook weer ak fukki fan ñu ngi ko wër kër Ousmane ndeysaan bi mu demee ba son dafa génn daal di yër bañ seen ko mu ni man dey maa ngi leen di fàttali loo xam ni war ngeen koo xam ñu ne ko lu doon mu ne keroog bi nga xamante ni bii day jafe na lool yonent bi alayhi salaatu salaam daal di sàkk jullit ñi ni kan mooy financé xare bii di jaysul ushra yàlla jigal ko bàkkaaram keroog maa ko defoon ñu ne ko axa kay mu ne keroog bi yonent bi waxee ni day kan mooy financé li ñu tudde jaysul ushra ëllëg yàlla nangu jëfam maa ko defoon ñu ne ko axa kay yow de ma maa ngi leen fàttali ni day man day maa yoroon ñaari doomu yónnente bi alayhi salaatu salaam muy roqayatu bintu muhammadin ak um ummu kalthum bintu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ah kay dencoon de muy nag kon mu yàlla allahuma ashhid mu yàlla na nga seede ni jullit ñi wax naa leen li ma def ci lu baax loo xam ne seede nga ko sa yónnente seede na ko ba pare nag ñu jëf ci man jëf yu ñaaw yi kooku mooy Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu kon mbokk li ngay jànge ci li ñu jot a jàngale tey ci dunduk Ousmane ibn Affan moo di nekk na daal saxaaba bu màgg boo xam ni yàlla daf ko jaraloon lépp ci kaw suuf waaye nag yonent bi alayhi mu nekk roy daf ko fonkoon lool ba daw ko jaxase ak genn wax waxam daw ko am leen benn dut ci waxam ndax yonent moo waxoon ni kat képp ku financé li ñuy tuddee jaysul ushra yàlla dana la jéggal sa bakkaar bu ëllëgee osmaan moom moo financé la gën a bari ci jayshul usra waaye tam yonent bi alayhi salaatu salaam itam xam nga ni bañ nekk ci Madina mar am lool ndox mu sell muñ naan jafe ci jullit ñi yonent bi wax ni kan mooy gas biiru rawmata maa garantil ko aljanna kan moo gasoon mbokk yi kenn la mooy Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu kon da ci déggee yu julli ni kat osmaan ku bëggoon yàlla la ba jeex tàkk nga xam ne alalam moom du fekk mukk soxla yonent bi alayhi salaatu salaam wala soxla borom bi subhaanahu wa taala ci luñ ko war a jëfal ci lislaam waaye nga dégg ci ne Ousmane itam ku fonkoon yonent bi alayhi salaatu salaam la ba ndigalam daw ko jaawale ak ndigalu kenn waxam daw ko jaawale ak waxu kenn waaye waxatam daw ci am lenn lu muy sikk sàkka ba tax na bi yonent bi diggée képp ku gas li ñu tuddee teen bii di rawmata ëllëg sëkkër mooy aljanna Usmaan daf ko gëm dem daal koy gas jox ko jullit ñi képp ku bëgg a naan ci ngay naan képp ku bëgg jàpp ngir julli ci ngay jàpp képp ku bëgg a sangu tam ci ngay sangoo farata kon lii lenn la mbokk yi ci taxawaay yoo xam ni Usmaan daf ko taxawoon ci wetu yonent bi alayhi salaatu salaam ak ginnaawam ci wetu Abubakar Siddiq kon kii mooy suñu jàmbaar ñuy waxtaane tey muy Usmaan ibn Affaan mbokk yi day mel ni maa ngi yokk agsi nag fi may jeex sama jotaay incha allahu ñu sant baax nag suñu caméraman yu am solo yi nga xam dëgg yàlla itam liggéey bi rafet na trop ñuy nuyu xaali nuyu itam mbokk mi jàkkaar dëgg yàlla nuyu itam sopp yi nga xam dañ lay karaw dëgg yàlla di wax na ñu ngi topp jotaay ñu ngi ciy jëriñu man ci tudd ku mel ni Hassan Abdallah nekk fële ca Daarul Xikma man ci tudd itam ku mel ni monsieur Li nekk fële ca Daara Aïcha man ci tudd tam ku mel nii Alaaji Malick jóob nekk fële ca Parcelles man ci tudd itam ku mel ni Cheikh Tidiane Seck nekk fële ca Yoof man ci duddu tam ku mel ni eh, Oustaz Balla saar waaye képp koo xam ne daal mi ngi eh, safoo jataay bi minbaru saxaaba rek ñu ngi koy nuyu di ko wàcce wàcce waaye di wax daal jataay seen jataay la lépp loo xam gis ngeen war nañ ko ci yokk incha allahu nañ ko yëg ñu yokk ko lépp lu ñu war a wàññi tam incha allah nañ ko ci mën koo mën ko wàññi xam naa kon ñu taxaw fii nag di jox mbokk di daje incha allah taala mbokki kon jërë ngeen jëf.